kaw ni rasuul murid yi ngeen déglu man dambuleen goosuul satub xadiimal mustafaa xayri rasuul lawul jalaalu wal jamaalu wal wusuul ma suri say jaloore gaynde faat maana yalaag la man nga yee faat mal way la man gwanta naa la jàng naa la xëy la doo desu dooxam aade bu arsa ma goor fi yow te naa la maay salarsa yaa tedd yaa teggiinu am teraanga yaa ñàkki tuuma yow mooy yaraanga yaa gaaw ji soxla waa kajoor ak njaambur ku nekk na ah, si am na saay bor waaloo ki siin waa Jolof ak waa Saalum ganaar ba fuute ñépp na la maalum doo fàtte fàtteloo ga dox di gotte doo futti koo ga sutti koo doo botte doo gëdde te yaa nuy wodd yàlla na say bañ yépp xëy ni kodd walaay baax bu doon tere amay bañ doo gis ko bañ si am mbàkke mbaa gu koy foñ du jànni kenn waaju ñëw mu yaatal soppeem yaag bañ bi duñu ko baatal du wéete ko soppeem ba tax mu bombe du wéet ci bii noon ba def fa njombe xajul fu sew musula jëw du wax miim te foo ko jëw ñu caw aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi siyaari ñëpp waaye di jiital ci nuyu bi ak siyaar bi Cheikh Seydil Matar di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tam ànd ak wér mbokk yi kuy fii ñu taxaw xam ne ñoo ngi fii ci péncum Daaru Xudoos ci bis bu mag bi nga xamante ni waa daayira fédération wilaya ñu ngi koy amal fële ci Ndakaaru mën nañ ne waa ahlu Daaru Xudoos képp ñoom ñoo ko ànd ak waa murub yëpp waa kër euh, doomi Serigne Touba yëpp mu doon journée culturelle islamique ñu koy amal fële nga xamante ni moo di ndakaaru fële ca place de Obélix mbokk yi gis ngeen départ bi dañ ngeen jëlaloon ni ñu fas yéene wan ne lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu li nga xamante ni moom mooy jëm ci programme bi nga xamante ni mooy programme journée culturelle islamique Touba Vision ñëw fas yéene wan ne lépp loo xamante ni am na fa incha allah rabbi gis ngeen départ bu nekk ci fédération yi nga xamante ni mboolem fu waay nekk gis ngeen tey ànd bi nga xamante ni ànd nañ ko. doon benn takku macha allah boo fi ñëwee rek sa xol day sedd lool ci délégation yi nga xamante ni amoon nañ ko ci mu doon liggéey bu am solo boo xamante ni tey jii ku fi ñëw rek di nga xamante ni fédération wilaya naka jekk li ñu baaxoo mën muy takku benn ak organisation boo xamante ni lu jaar yoon la ku fi ñëw rek amaana di nga ko gis gis goo xamante ni doonu lu ñuy naatable ñu fas yéene war nañ lépp loo xamante ni dina am ci deux jours yooyu nga xamante ni ñu ngi koy amoon fële nga xamante ni moom mooy Ndakaaru dégg ngeen ko noonu ci programme bi première euh, bis bi mu doon tey jii di àjjuma ji ñu ngi koy amal fële ci place de si waaye ginnaaw bi ñu demee ba suñ demee ba euh, waxtu 3 heures nañ dem fële nga xamante ni mooy université def ay waxtaan yu jëm ci dunduk Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma ak Serigne Mbacke Soxna Lo noonu nañ ko fas yéene wan leen lépp loo xamante ni programme ba jëm ci wàllu journée culturelle yi nga xamante ni mi ngi am fële ci Ndakaaru Touba Vision def danna foo yandu foofa mel daarul janna mboolem saxe je bopp yaa ngi jaaxaan xejoowu ñoo ki xoji lii duy caaxaan këri tabax ngay seedale ndakaaru ay junni ngay seedale ndar ba daaru piisi mbaseñ ak tani ceeb ak saaño ngay maye yow waaju la gedd gaañu mbakke ba njurbel ko aku gis muy tuuse sa bong la yor waajur a bañ moo xuuse tey jagaate ak ceebiyu mi yaa yor Sénégal ku bañ sëriñ si Mbàkke yàlla du la baal ku ragg mu faj la mooy tabiibu loo ko tawat mu faj ko mooy abiibu mooy rahmatan lil aalamiin ak a ñàkk ni ko maa ngi ëw ma dara gor nii sama sëriñ maa ñi nangu laa di wax bu leen ma jaay man duma léebu duma koy gaaraanu nde bay di suuru segg mbaa saafaanu waaye jaloore gaynde faat ma saambar ku déglu dégg boo ñëwee fa saagar góor moti leen góor moti leen nay bàgge seex fa tuuba Muhammad si mbooleem góor ñi umnagiego taare baram tuduudi yaamu am nayde fal yaanganaala goongo yaade gaynde te dawru rahmaani muridi ak seer suuf sar yaade baroom ko wadili i dooroosa te dawru rahmaani muridi i dooroosa badan saad ak yu sebal yaay waa day am mu am ba jar danki jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ne yéen a ngi bàyyi xel Touba Vision gis ngeen noonu départ bi ni ngeen ko jëlalee waaye ñu ci membre yi nga xamante ni ñoom ñooy jóge fii nga xamante ni mooy Touba jëm fële ci Ndakaaru ngir grande journée culturelle yi nga xamante ni waa kër euh, Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma ñu ngi ko fay amal ñu taxaw ak euh, Serigne Moustapha mu defal ñu jàngat rek ci mobilisation bu am solo bi nga xamante ni fédération wilaya euh, mobilisé nañ ko Touba gis nga tey ku fi war rek tey sa xol sedd na ana wàccaay woowu tey nga ko amalee. ah mbégte rek mbégte rek ak sant rek mais du ko rafetlu lool waaw lii moom lii rek la sëñ bi bëggoon te lii ñun ñëpp suñu xol sedd nañ ci guy lii nag dafa dank loo xam ne fii ne daanaka rek daa am lu muy wane ci yoon yi kon. li ñu ciy mooy góor mooy góorgóorlu te fasaat jom rek ndax lu am solo la lii moom moom xol wax dëgg yàlla. ñu jëm ci euh, journée culturelle islamique mu doon c'est la première fois ñuy woote lu mel ni fële ca Ndakaaru lu mel ni ahlu Daaru Xudoos gépp ñu génn takku ngir euh, bis bi di réussir waaye day mel ni bu fi yemoon mu daal di neex ndax ndax mobilisation bi nga xam ne gis nañ ko fii néewaan na ñu koy gis ci euh, mbooloo yi loolu dëgg lan moo ko waral. xam nga Darou Khoudoss moom daanaka waxuma la Darou Khoudoss a waaye dafa yaatu dañoo am gannaaw lu demee ni suñu seex bisu suñu seex ak li mu li mu liggéey ci jamono rek lépp rek euh, dafa doon loo xam ne lu doy lu doy waar la doyoon kii loolu wax dëgg yàlla li ci liggéey moom yaatu na te euh, def na ci lu rëy daal ci yoon yi ba tax na daanaka yu demee nii su amee. Euh, dañuy ñëpp dañuy sawar a jóg ci yoon yi taxaw ci la loolu moom wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko baax baax kilifa yi ñëpp jóg wax dëgg yàlla rafetlu ko waaw waaw kon sant bu baax rek li ci gërëm moom rafetlu nañ jotaay bi te waaye ba rafetlu nañ ko ba mu jàmm ñëw jàmm yàlla barke borom Cheikh Mbacke sëñ Cheikh Mbacke Baye sëñ Cheikh Mbacke ñu jëm ci journée culturel bu am solo fële ci Ndakaaru gis ngeen départ bi nii ñu jëlal leen ko mu doon mobilisation bu rafet ana tey loolu ban jàngat tey nga ci am. Euh, alhamdulillah jàngat bi ñu ci am mooy sant yàlla euh, delloo njëkkal Serigne Cheikh Mbacke Ahmadou Gaynde Fatma ci yéene ju rafet mu amoon ci boolem boolem ummatul islam rawatina taalibay xaadim rasul euh, mobilisation bi jàngat bi ñu ci am mooy gis nañ ne mbooloo mi takku nañ taxaw nañ wala nañ fulla ak fayda wala nañ yitte wala nañ ne benn lañ te loolu la sëriñ bi bëggoon ñun ñëpp ñu ànd euh, jàpp ci buumu yàlla gi bañ a teqalikoo loolu mooy euh, tey jii euh, lii firndeel na ko ñu mobiliser ñun ñëpp ànd bëgg dem Ndakaaru ngir taxawal fa bis boo xam ne nii dañ ci fàttaliku Serigne Cheikh ak xam-xam ak euh, njàngale ni nga xam ne nii bëggoon na ko ci euh, taalibe yi ba kenn ku nekk xam nooy téye sa sa sa taalibe xam nooy toppatoo sa diggante ak say mbokk ak say am di jàmm ak ñi la yàlla booleel waaye xamit sa taxawaay sa diggante ak sa borom loolu daal euh, jàngat nañ ko ci ci ci ci. taxawaayu sëñ Seex ak it pas-pas bi nga xam ne nii mbooloo mi am nañ ko te fas yéene delloo ko njukkal eh, lii nga xam ne moo tolloog tey juróom fukkeelu at bi ñu taxawalee fédération bi ak léegi ak li nga xam ne nii Serigne Mbacke soxna loo dolli na ko si si liggéey loolu yi daal laal si mënoon a waxtaan. maanaam euh, mu doon loo xamante ni tey ku fi ñëw rek sa xol dina sedd ndax mobilisation bu rafet loolu coordination bi dëgg wàccaay la. loolu naka ngeen koy amalee saa su nekk. maanaam. mobilisation bi nga xamante ni saa su ne ku fi ñëw rek dina ko gis. wàccaay woowu naka lay amee ci yéen. waaw loolu boo ko gisee mooy nii fédération bi di doxee. dafa am euh, nu muy doxee ni muy doxee moo di. bu ndigal bàyyikoo ci kaw dafay wàcc ci comité directeur bi comité directeur bi dafa am ay section yu ay ay ay commission yu ko composé euh, te bépp daayira bu nekk ci fédération ci section bi am nga fa ay représentant bu ko defee lépp loo xam ne nii mas nañ ko ci kaw responsable yi ñoo koy wàccee ci daayira yi bu ko defee commission bu nekk lam ci war a liggéey waa culture lañ ca war a soxla ci njàngum alxuraan wala lu jëm ci wàllu diine ji ñoom danañ ko taxaw communication bi ñoom ñi nga xam ñoo ko danañ fexe ba information yi jàll moo xam dañ koy jaare si ay communiqué moo xam dañuy sensibiliser nit ñi moo xam dañuy bind ci réseaux sociaux yi waaye daal danañ fexe ba information bi yegg fi nga xam ne fa la war a yegg naka noonu mboolem commission organisation ak yooyu yëpp ñoom ñëpp kenn ku nekk dafa am pàcc boo xam dañ la jox nga xam ne da nga xam na nga ku nekk fi ñu bëri seen mbooloo muy bëri bëri kenn li nga war a def kenn ku nekk xam nga lan mooy sa am na ñoo xam ne fi ni nii du ñu jaxasoo ndax leen lu nekk tey jii man bu ma bëgg daraja bana naa ko def parce que am na ku ñu ko dénk kooku laa koy bàyyee man la ma war a def bu accès danaa ko xam loolu mooy waral mobilisation bi lu mbooloo muy bëri bëri danañ coordonné day mel ni per course rek boo jàppee ca noonu la ñu sëñ bi tënkee noonu lañuy jàngal noonu la ñuy doxee bu ko defee dañuy jël jëriñ teg suñ kanam kenn ku nekk xam nga sa wàccuwaay waaye xam nga sa wàccuwaayu morom te kenn ku nekk bu doon tëb cër la da koy bëgg a jox sa morom ñu ngi féetewoo ko yow nga def topp ci ginnaawam loolu mooy ànd bi nga xam ne moom la ñuy sëriñ boole moo tax daanaka lu mbooloo mi yaatu yaatu yaatu pacax pacax ko du ci am dëgg la nag xëy na léeg-léeg ay faa yu ndaw mënul ñàkk ndax loolu mooy matadi doomu aadama waaye teewul mas nañ ko daal ba teg ko ci yoon woo xam ne nii jàpp nañ ne eh, incha allah dana mucc ay ñii ñaan suñ borom mi nga xam dara tawu ko mu di may ñu ci eh, tawféex ci darajey Serigne Touba radiyallahu taala anhu waaye ci barkeb suñu sang ba Cheikh Mamadou Moustapha ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak Serigne Mbacke Soxna Lo toppaleen muy journée culturelle yi nga xamante ni mi ngi am fële ca Ndakaaru gis ngeen nii ñu nekk ci départ bi nekk fii ci diwaanu Touba fas yéene dana wan lépp loo xamante ni jëm ci journée bi kon nag surtout kon ñu dikkaate gi jàpp ceere fegal sëñ Touba nga def si ay yaa doon kër Bàmba sama am fa Njurbel doon ale dongo yaa ak ñoom ak fental say téléphone dem na ba Daaru Bay laa dem na ba Taayif gi éer gi man ma way la Daaru Xudoos def nga faay dina amu def nga la fay may waloor ni leen mu appaare yaa nga faa ki naas di korno suuf sa sa baay bu tedd baa ko borno moo nga baay ba moo fa def jumaay ja mu andi fee bamba ca biir moo ja mu andi raay ba moo fa def jumaay ja mu andi fee bamba ca biir mooy waaja yaa di donoom Seex Mbàkke bàllaay sa sigil rusuute daagu maa nga jay yaa jënd kër am di sa baay fa Njurbel jënd këru Mbàkke Bawol ga yaa bel yaa jënd kër am di sa Ndakaaru dali ci kër yi tol ni mu am ñu waaru yaa jënd kër am di sa fa gàdd yee sa këru baambe i ga yaay ko tedd yaa jënd kër ga nekk ngaay am ñaaxeen raw a seen yaa jënd këram di sa baay fa lugalu o dali ja kër bu këram la ñuy màggale yow ma lax di am na faay tabax yu taaru cey moom moo di sagub diine ji mooy sunum koom am na fa kees këri tabax yu taaru ak dagi suuf ak i tabax ndakaaru ay kër la am gara dakaaru jox ko murid yi amadul masaaru kër yàlla daa teddu daa saaram bel sëñ Basiru dem na sala sa basiru tuddoon kër ga ji atagu saan joxma fa tablay warga ni minnatullahi la tudde kër ga murid ya war ko do amee bamba mbër nga tey la waxew keroog ci xeeti xéewal jaaraama bamba mbër ma jaaroon jeewal tey la waxew keroog ci xeeti xéewal jaaraama bamba mbër ma jaaroon jeewal ma dellu wax la ndani gaynde Faatma nga xam ne njool mi tiim na duuñi ndaama cay li mu am cay li mu def ci Sénégal ku nekk may na la lu gën la ci Sénégal may na ma man ay junni may na ma walu óor ku jar junni junni la mooy baabul xuluur yal na nga barkeela ni waa ne u ceebo amiina yaa xaribu yaa mujiibu yal na nga barkeela ni peppum suuna amiina yaa ilaahu alamiina aalim nga a ah, foofu nga defar nga jàkka am nga juma fa Mbàkke añ taalif nga ay téere te dem nga Tayba siyaare ayoon naan ba siyaare Bàmba sanal nga góor ñi ba ni teeni naanu sagal jigéen ñi koo nga daanu bawoo nga fii dinaaw ba baytil mahdis yaa jand tiim nga mboolem góor ñi yaa fi mboolem yu ànd na nii dem nga si eeni rawladu siyaare leen ñi anal fi jaam ñi rahmatu alayhimu salaatullaahi wa salaam te ëllëgit nga may nu jannatu salaam ma bari fi yaa màgge yaa màgge may bari fi yaa màgge fëtug fi yaa bàmba yaa na moo la ba kër bu yónneen ba dem na ba Bayuuta yaa ma no salaami dem na ba Baxdaad dem di ba sasaami si ari jiiliyu siyaare an bal bàyyib sëriñ mbàkke moroomam yombul siyaar na yonnan ba siyaar sëtam ya useynu ak asan la teg bëtam ya dem na ba karbala dem ker dem na safaana yes dem ker maana dem na ba ind wàcc fil kaaraaji si mbàkke balla yaa amatu balla aji sëriñ bi yow mi uwa mataale saa faal nga ne li mbàkke bol de wax de si faal taxawlu naa ci wa i balaay sa te moy mi gën ñi fi i baaw sa yàlla yaam si yéen yow si a mbàkke amiin ya rabbi nu baawa baya badiraaya dundul kitaab جل الكتاب واقبل مراب يا كرايا بالكتاب بالمتابة الإلهي يا خير

كل بنتي سلم وسلم على المتعب كل يوم صل وسلم على المتمم كل يا سيدي صل وسلم على المتمم كل يا زوا على المتمم وكل عائشة وسلم على المتمم كل يا زوا